Donc la paix est un élément central dans une société. C'est la condition première pour que les hommes puissent mener paisiblement leur activités. L'implication des femmes est non seulement une exigence des résolutions pertinentes des Nations Unies pour que vous soyez autour des tables de négociation. Mais dans notre pays, démographiquement, donc démocratiquement, votre rôle est premier, puisque vous constituez plus de la moitié de la population du Sénégal. Et en plus de vos rôles de mère, d'épouse, de sœur, meurtri, comme vous l'avez exprimé par l'affrontement fratricide de vos fils, mari et père, je pense que vous avez un rôle déterminant dans la construction de la paix. Notre engagement est donc total en faveur de la consolidation de la paix et en faveur d'une paix définitive négociée par l'ensemble des acteurs. J'ai eu l'opportunité au cours de mon parcours politique à approcher cette question de très près de l'intérieur. En tant que ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République et en tant que Premier ministre, j'en connais la complexité, j'en connais les exigences, je connais et continue d'entretenir des relations avec l'essentiel des acteurs. Donc vous pouvez compter sur nous si par la grâce de Dieu et la volonté du peuple sénégalais nous accédons à la magistrature suprême, l'une de nos toutes premières activités sera naturellement de nous occuper de la paix en casement à vos côtés, en vous impliquant pense que vous n'aviez pas besoin même de le formuler. Je pense que c'est une évidence parce que nous savons le rôle absolument essentiel que vous pouvez mener du fait des relations que vous pouvez entretenir avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient étatiques ou qu'ils soient du MFDC. La paix est centrale, c'est le premier devoir de l'État nous nous y engageons fermement et nous signons avec les deux mains et avec le cœur la plateforme que vous venez de soumettre à notre attention. Avec nos remerciements et en nous soumettant le cas échéant à vos questions. Merci beaucoup. Vamos Jarang gen, jarang gen jam. Wolof bëggoon a wax moom laa tàmbalee woon wante comme suñu gan yi ci tubaab lañu lañu wax ba bëggoon leen tontu ci tubaab pour pour tàmbalee ko donc ginnaaw bu ma leen nuyuwaatee nuyu bi gën a kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu présidente bi ak membre bureau bi yëpp di nuyu membre plateforme bi yëpp damay sant yàlla d'abord ci li mu ñu baaxee jataay bi ensuite sant leen gërëm leen yéen ñëpp ci dalal bi ngeen ñu dalal fii ñu fiy waxtaane jàmm ci Casamance ma fàttali ne ci histoire humanité maanaam bi nit amee ci àddina ba léegi li nga xam ni moo jur état li jur état bi nga xamee ni puisque ca njalbeen nga dañu doon rëbb ak rek ci garab yi di dunde loolu la nit ñi doon dunde changement climatique am désert yi dàq nit ñi ci àll yi ñu nekkoon ñu regrouper wu ci fleuve yi nga xamni ñoo gënoon a mag di traverser désert yi nga xam ni ndox dana fa am ñu mën fa dund dund bu sel muy Nil euh, Tigre et Euphrate bi formé Mésopotamie fleuve jaune manam chinois yeeg yooyu ak indus ak indien yooyu moy quatre grandes civilisations yi njëkk am nga xam ni nit ñi organiser nañu fa état li sabab nit ñi soxla woon état nga xam ni premier état bi am ci histoire moo doon pharaon bi li ko sababoon soxla jàmm puisque pour rebe ak wit soxlawul temps bu bari da ngay dem rek li nga soxla nga witti ko jóge fa wala li ngay rëbb nga rëbb ko jóge fa wante bo bëggee bay wala nga yar ay jur loolu day jël temps fokk nga préparer suuf si fokk nga ji fokk nga roose fokk nga xaar mu ñor fokk nga euh, récolter boo récolté fokk nga denc ko ci sàq jur gi itam noonu lu xeexoo ci sa kaw doo ko tal loolu moo jur état ci histoire de l'humanité loolu moo tax fonction bi njëkk maanaam responsabilité bi état njëkk am mooy jox nit ñi jàmm ba ñu mën a tal seen yëngatu wala liggéey bi ñuy mën a suturloo wala sax seen jaamu yàlla donc jàmm moo war a njëkk ci responsabilité état donc loolu moo tax wax ne vraiment priorité absolue ci suñu gouvernement bu fekkente ne suñu borom jàppale nañu seen loolu mooy indi jàmm définitivement ci Casamance même bu fekkente dañu nekk situation ni paix ni guerre c'est un conflit défini comme étant de basse intensité même bu fekkente ne loolu am na dañu war a toog waxtaane jàmm ji ba mu leer nañ ñi ko séq ci nous dépasser conflit définitivement pour que richesse yi nga xam ni suñu dans les trois régions de cette Casamance naturelle magnifique nous mën ko au service des populations donc lolo motax mané engagement bi ñu jël fi ci trois points yi ngeen wax ci plateforme bi engagement la yo xamni dañu ko signé ak suñu ñaari loxo suñu xol nekk ci puisque loolu mooy li ñu tax njëkk a jóg damay wax toujours ne mission état bu mu mënti doon mission njiit bu mu mënti doon mooy indil jàmm nit ñi dàqal leen loraange ñoddil leen ay njariñ ñu mën ko jariñu loolu mooy mission bi amul amul amul leneen ñun ñëpp

rôlu jigéen ñi li tax mu am importance du rek cër bi leen yàlla jagleel ngeen nekk suñuy sœur nekk suñuy soxna nekk suñuy yaay ku nekk xam na rapport bi nit ki di entretenir ak yaayam rapport bi nit ki di entretenir ak soxnaam rapport bi nit ki di entretenir ak sëram ay relation yu yàlla barkeel la puisque daf ko tabax ci cofeel donc seen influence ci ñun war nañu ko jariñoo pour tabax jàmm ji puisque ñii xeex ñëpp am nañu ay jigéen am nañu ay yaay am nañu ay soxna donc bu ñooñu dajaloo ñaan leen soññ leen ci ñu dox jàmm loolu war na mën a yomb loolu moo tax seen rôle dafa nekk un rôle essentiel mais bu loolu weesoo démocratie mooy kenn ku nekk benn baat la am li yàlla dogal mooy démographiquement maanaam ni ni suñu askan bindoo jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi donc vraiment seen baat dañ ci war a tenir compte bu bu bu baax a baax sur le plan politique donc loolu laa ñëwoon pour wax ci fii ak yéen wax leen ne kontaan nañu trop ci initiative bi ngeen jël sant nañu leen gërëm nañu leen ci euh, activité yi ngeen di mëne yépp pour jàmm mën a dellu si en casamance sax fi loolu sénégal ak àddina bi yépp ñoo leen ci ñoo leen ci amal njukkal insha allah lépp lu ñu mën pour jàppale leen ci dinañu ko def jërëjëf alors je, je, je donne lecture euh, donc de la note que j'ai faite à la suite de la signature Donc je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et remercier toutes les femmes de la Casamance qui portent le projet de la consolidation de la paix en Casamance. Et je m'engage à leur apporter mon soutien total dans cette entreprise. Et, je fais cette déclaration en présence d'une des femmes leaders de notre coalition, le professeur Amsat Sow Sidibé, qui est également votre, votre ami veux peut-être dire deux Merci, Monsieur le Président Idriss Seck. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Ndey Marie, Seynobu. yéen ñëpp nuyu nañ leen. am mbégte ndax jigéen solo soxlootu sax ni di ko ni ko Nations Unies waxee résolution treize vingt cinq nee waratul wax jàmm te jigéen dugal jëloxo man gis naa li ngeen def ànd nañu liggéey ba suñu borom wàcce jàmm ji ñu bëgg mu gën a dëgër suñu borom wàccee ñu Idrissa Seck waaye ñëw leen jox ko loxo

kon kon yéen ñëpp jàpp leen ci yaakaar la te yàlla bu yaakaar tas am nañu yaakaar